إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant sunu boroom noo ngi koy bàkk di ko kañ di julli di sëlmal ci ab yonente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noo ngi ñaan sunu boroom mu dëkkee doot ci waanan xéwal ci kaw yonente boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ ci ron keppaaru xam-xam di waxtaanee saxaaba yonent bi alayhi salaatu wa salaam sunu bind bi weesu ñoo ngi nekkoon ci dundu alsaxaabiyu aljalil abdullahi ibni mas'ud saxaaba bu màgg boobu nga xam ni moom lañ doon wooyee abdullahi ibni mas'ud mbokk yi xam ngeen ne Abdullah ibn Mas'ud waxtaanee dundam mooy waxtaanal gone yi ndax li ko waral mooy Abdullah ibn Mas Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas waxtaanee dundam mooy waxtaanal gone yi la ko sabab mooy liñ koy nawee moom Abdullah ibn Abbas nga xam ni lépp du génn xam-xam li ko ko yàlla dénk booba tuut tànk la woon loolu dama am benn yëg-yëg muy courage boo xam daf koy defaat ci ndaw li mooy mu yëg ni moom ndekete kat bu góorgóorloo nu ne mën na nee mel loolu lu am solo ndaw li fas ko léeg-léeg amaa nit ki dana dana yaakaaral jàpp ni ah lii de mënuma koo am ndax nangam ak nangam waaye su fekkee déglu nga dund ko mel ni Abdoulaye bi ne Abbas nga xam ne tawfiq yi ko suñu borom defal li mu ko koy defal suuf tànk la di ndaw di nga daal di amaat suxuur amaat yëg-yëg ah ni man kat ndekete war na maa mën a mel nu ne ndax kii kat gone la Abdullah ibn Mas'ud gis ci Abdullah ibn Abbas gis ngeen tawfiq ji ko suñ borom defaloon ci sàkku xam-xam te boo fekk ndaw la daal ko fukki at ak nangam maa ngi koog ni mbooloo mi nu tiim ñi ci ëppal fukki at bari na kon jamono ji Abdullah ibn Abbas di ma tàmbalee mel na muy mel booba ci at yi rek la ko doon at yu tuuti yi waaye nag nit ki saa bu ko gëmee xam fa mu jëm xam la mu bëgg xam la muy wut borom lan na ko defal tawfiq ci kàttanam ba mu am la muy yóotu suñu bind bi weesu gisoon ngeen as lëpp ci lenn ci yi nga xamante ni mooy Abdullah ibn Abbas ak ñaan gi ko yonent bi ñaanaloon alayhi salaatu wasalaam ak ndimbal li ko suñu borom defaloon ci wàllu xam-xam tey ñu ngi continuer ci bunt bii di ibadatuhu radiyallahu anhu nan la meloon moom Abdullah ibn Abbas jaamu yàlla mbokk yi xam ngeen ni jàng siiratu salaf mbokk ni ci ëpp solo mu ci xam ñoom fan la seen ragal yàlla tolloo fan la seen mën a jaamu yàlla tolloo fan la seen jub tolloo fan la seen dëggu tolloo ak fan la seen jëflante tolloo ndaxam yii day kenn ku ci nekk ci ñun boo wéetee nga xalaat di nga xam ni nit ñu mel nii te ragal yàlla ci kell gis yonent bi alayhi salatu wasalam fekkee ragawaat yi am ngërëmal yonent bi su fekkee ñoo mën a toll fii ci jaamu yàlla kon ñun ñi nga xam ni amaguñu ngërëmal yonent bi alayhi salatu wasalam fekkeewuñ benn xare tendeewuñ ak jamono ju ju gëm suñu jamono jii maanaam li nga xam ni mooy ay jumtukaay yi tax nit fexe yii yépp ñoom ñu amoon ñun amuñ ko benn maa ngi yaakaar ni kon góorgóorlu ñun la war a gën a war ibni abi mulayka mooy nettali nee na dama àndoonal abdullah ibni abbas benn bis ñu jógee màkka jam madina nee na bokk na ci li ma seetlu mooy saabu guddi jotee dafa mel ni ku ñuy yeefal allahu akbar nii la salafu saalih meloon mu ne bu guddi jotee day mel ni ku ñuy yeefal yeefal gi mooy lan mooy dafay bàyyi ba ñu toog su ko defee kenn ku ci nekk tëdd fa nga tëdd moom it mu tëdd ko ñëpp gis nga gars yi ñu xamoon na ñuy wutee tiyaaba lañ te ñu xamoon nu ñuy moytoo ngis salla au lieu que mu lal ci jaadam teg satalaam fële di wane ni man ko dinaa jub si guddi gi déedéet nit ñi dañuy lal mu lal comme ñoom ñu tàllee ko mu tàllee ko ñu sàngu mu sàngu fas yéene nunu ko jëmale fajar ndeke déedéet day yeetal nit ñi allahu akbar boo delloo ci téere mel ni sifatu safwa ah al imam ibn al jawzi ma ngi fay niti lu ñu mel noona boo demee ci siyaru alamin nubala imaamu zahabi mu ngi koy niti lu ñu mel noonu moo tax mu ci nitilee kenn nga xam ni danañ yeetal soxna si ba guddi soxna si nelaw mu rocceeku ndànk di julli mbaa muy jooyal yàlla nga xam ni soxnaam sax du ko yëg kenn ci ñoom moo nekk wax ci imaamu zahabi def ci taaliq mu ni ah kon de xanaa yawa ndax nit naka la mën a defee jaamu yàlla nëbb ko ba nëbb soxnaam di génn di ko wax nit ñi déedéet kon ki ngay nitali naa am nañu daan def loola da ngay réerantal nit ñi rek ndax bañ gis tal waaye yow la aka wax dëgg ndax ñoom noonu lañ doon réeralantee nit ñi dina bu seen i jaamu yàlla nee na Abdullah ibn Abbas suñu bàyyee ba guddi gi xaaji rek ah ibn abi mulayka nee na ma ñu daal di koy seetloo rek nekke da jub na commencé di julli gis nga mbokk yi julli guddi moom sa jamono ju yàgg ja pat kañ ci mboolem dar fi yéen fi am ci fiq beeg ci xayatu saxaaba yaag ci quran baag fu ñu ko mën ci yegg rek yàgg naa wax ni buntu la boo xam ñii raw ñëpp ca lañ rawee ñii raw ñëpp ca la ñuy rawee bàyyi ba mu lëndëm yow kete yàlla kete koo ko waxut du ko xam tëb ni mu neexee lal yi ni mu nooyee mbàjj yi ni mu nuggee ah ndox mi ni mu seddee kenn forcé wu la te boo ko defut kenn du la wax dara sa coobare yi bopp nga jub lépp sa ñaari tànk yii di jàng di bànneeku ci alquran ndax inna naasiata allayli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila wallahi yow ci sa jëmmi bopp yaay njëkk yëg ni yow fi ne am na lu la dugg da ngay njëkk yëg ni am na lu la dugg lu bokkut ak la nga na nga meloon maanaam kii keneen la ko dut yow te loolu nag moom laaj leen ko def ka ñi koy def ñoom xam nañ ko bu baax min la dun salaf ila yawmina hada nee na mu daal di jub di jàng benn bis ma teewlu ko bàyyi ko xel ndax ñoom it ñetti daawut def it te gis ñuy góorgóor def dañ leen daan yëddu di leen seetlu ndax maa roy ci ñoom jaamu yàlla nee na xam naa mu foog ni maa ngi nelaw fekk nelaw moom ndika mi ngi jàng aay gi di wa jaat sakratul mawti bil haqq suñu borom mu ni wa jaat yegsi na tey nag sakratul mawti sukuraati ndee sinum la fekk suñu borom mu ni yow jeexal nga de pare nga wa jaat yegsi na sakratul mawti sukuraatu ndee yow ay kerta la fi defe léegi nag dalika ma kunta minhu taxiid li nga doon diit diita la ko fekk sàkka buñ koy wax sax nga bëgg nit ñi noppi ndax bëggoo ku ko wax mu ni mbir ma yegsi na nee na bi loolu amee fi la daal di taxaw mu Abdullah ibn Abbas allahu akbar mu ni di baamtu aaya jooju di jooy ma di ko déglu muy baamtu aaya bi di jooy ma di ko déglu muy baamtu aaya bi di jooy allahu akbar ci guddi gi xoolal nga ñuy daje julli guddi gi jooyal yàlla gi sellal ga nëbbatu ga allahu akbar nee na loolu man fekkee naa ko ci maat nee na ibn abbas dafa am feebar bu tàbbi woon ci bët yi genre ndox la moo xam ni bu tàbbee ci bët kat dafay yàq bët nee na bi loolu amee nee na Abdullah ibn Abbas ba ji commencé gëmm xam ngeen Abdullah ibn Abbas ci mujjantul gëndam dafa silma xawa moo tax gars yi naa ko ah waaw yow moom silma xëy moom moom doy na waar di mu ni àll ci metti leer gi nekkoon ci sama bët yi moom la yàlla jël gisatuma waaye nag alhamdulilah leer gi newoon ci xol bi muy xam-xam bi ba léegi ni nga fa def nee na moccikati bët yi defe naa loolu dama ko gëj a dégg sax xaw ma ndax mi ngi amam déet nu mu koy def bàcc ci bët bàcc ci bët bàcc kati bët yi ah bu la déggee baadu mer mocc kati bët yi daal di ñëw ni ko dañoo bëgg a mocc sa bët yi waaye nag buñ ko moccee doo julli doo mën a julli parce que sëgg gaag yooyu da koy bañ di nga toog kon ay fan maanaam ci gàttal daal juróom juróomi fan yoo xamante ni doo ko julli kon Abdullah ibn Abbas nee na bu fekkente ni wér gi nar naa am te ci ñàkk julli la nar a jaare kon du ma wér déglu lam ci teg mu ni inni huddittu annahu man taraka salatan waxidatan mutaammidan laqiya Allah azza wa jalla wa huwa alayhi ghadban nee na bu dee ñàkk julli gi mooy tax bët yi wér ma xam ne du wér ndax man ñett yi lañ ma ni génn julli kese ku ko bàyyi te yaa ko tey boo dajee yàlla yëgal ni yàlla mer na la jéppi na la bëggu ci yow dara soxlaalu la dara ah mbokk yi ku bàyyi benn julli te tey ko nga dajeeg suñu borom mu jéppi la ba du la xool waaw ku def julli moom bu dajeeg moom nu muy def dana ma jaaxal lool kon Abdullah ibn Abbas daal di tontu waa ji loolu kon lii li muy wane rek mooy ku ragaloon yàlla la ku mënoon ay jaamu yàlla la lii lenn la ci rek waaye boo delloo ci téere siyaar yi la dañu sifatu safawu ibn Jawzi ah da nga cay fekk ay bunt yu mu lay wan ni mu ragalee woon yàlla ak ni mu mënee woon jaamu yàlla ku bëri woon kersa la radiyallahu anhu gis nga mu musaana dugg ci wanag ah day am problème sax ndax ak ay yéwén ndax nee na dama rus sama borom ba rus sama borom gis ma donte maa ngi ci biir wanag sax daf yaramu neen kooku da xanaa daf ñuy fàttali Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu dama rus sama borom ba rus sax nekk ci wanag wi futteeku sama borom di ma gis fekk maa ngi futteeku laa sakka ni hada gaayatul gaayatul xayaa ah fii nag wax dëgg yàlla fa nag am kersa nag mën a yem moo tax yonent bi saa sallam nee na ngëm yàlla kersa ñoom ñaar ay doomi ndey lañ bu dee rek beneen dee bu ci dee rek ay jeex lañ bu dee beneen dee benn ba ca topp dee ngëm yàlla ak kersa ñooy ànd bu yàlla yëkkatee bii ba mu jóge fi rek day yëkkati ba ca des moo tax dañoo wax alxayaau la yati illa bi xayr kersa daal du andi lu dul aw yiw waaye Abdullah ibn Abbas mbokk yi kaana mutawadia allahu akbar Abdullah ibn Abbas ku ku ku oyof la woon ku oyof ndeysaan ak am solo mbokk yi yàlla dénk la ay ndombay tànk mbaa mu dénk la xam-xam bu nga sut nit ñi ah gis nga doomu aadama lu ko yàlla ëpp leen nit ñi rek mu commencé di leen ko wan ma dikkee di jaay nit ñi yaa leen gën a xam yaa leen gën a dégg luga yaa leen gën a dégg fiq yaa leen gën a dégg xadiis yooyu amul temps yooyu wan ko wan ko yàlla subhaanahu wa taala waaye bu ko wan jaam ñi allahu akbar ay koo xam ni borom subhaanahu wa taala da koy dénk ay ndombay tànk wala mu dénk ko xam-xam waaye dafay oyof wàcce boppam suufeel boppam ba da ngay yaakaar ni kii du moom la yàlla dénk lii gis nga ko Abdullah ibn Abbas nga xam ne dafa yoroo ci leen keppaaru yonente bi alayhi salaatu wa salaam ibn Burayda al aslami nee na benn waaye daf doon joteeg Abdullah ibn Abbas xas ko allahu akbar xam nga nit ñi day daan nag noonu la mel rek am ko la cokkaat Abdullah ibn Abbas doomu bàyyi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gën a dégg alquran ci xeet bi su fekkente ni moom la ñuy cokkaat di ko wax mbokk yi kon bàyyiwuñ kenn wala xoolal kii tey cokkaas bi ñu ko cokkaas bu ko yëgaloon Omar ibn al-Khattab wallahi ka ko cokkaas kon tey halkaane dal ko waaye waa ji cokkaasee wax koy wax ba noppi Abdullah ibn Abbas ni ko yaa ngi may xas de yaa ngi may saaga de waaye du ma fayu yaa ngi may xas de yaa ngi may saaga de du ma fayu ndax ni nga may melal de melu ma ni man naa la wax ay melokaan yoo xam ne mi ngi ci man am naa ñetti melokaan bi ci njëkk mooy man de dinaa romb benn aaya ci alquran ma yëg ci cappa goo xam ni maa ngi tëbaka dal ndax aaya gi nim ma duggee nim ma neexee li may ndébét mooy aka neexoon jullit yépp xam li ma xam ndax ñu bànneexu comme ni may bànneexoo loolu mooy wane ne yéen naa ñëpp yiw te yow ci ñi ma yéen yiw nga bokk allahu akbar mbokk yi lii ñun mënuñu ko lii ñun mënuñu ko mu teg ci ni ko man de dinaa dégg benn jullit àttekat ci jullit ñi mu àtte ab àtte ma dégg àtte ba àtte ba jub te maandu dama cay kontaan de di ko ñaanal ci moom yëgul ni sax naa ngi koy ñaanal te soxlawu mu yëg ko beneen bi ci des nee na danaa toog ba mu yàgg ñu ne dëkk sàngam de neween ba baax na ren mu ni ma kontaan mel ni dama faa ami tool te aw ma fa sax mbokk allahu akbar mbokki mbokk yi hakada yakunu almumin gis nga ku gëm yàlla saa boo dee ba natt sa bopp li nga yéene sa bopp moom nga yéene sa mbokk jullit bi ahiba linnas ma tahibu nafsi dégg naa saalum kat seen nawetu ren bi baax na muy dama ci kontaan ak kontaan mel ni ku fa am ay tool te aw ma ko sax mbokk fa loolu li koy waral mooy yéene sa bopp li nga yéene sa mbokkum jullit kii yaakaar na ni kenn du ko saaga mbaa di waxanteeg moom muy fay bokk na ci mooy ku setoon la moom Abdullah ibn Abbas maanaam bokk na ci yi nga xamante ni yàlla baaxee woon na ko nee na saa su ma déggee sama mbokkum jullit wax ci man lu ñaaw nee na su ma déggee sama mbokkum jullit wax ci man lu ñaaw nee na su boobaa ñetti taxawaay yi laay am ci moom wallahi mbokk yi gis nga gis nga kii jàngalekat bu mag la te ñun ñëpp waroon nañ ko déglu nii la ko imam ibn al jawzi di faram fàcce ci sifatu safwa nga xam ne mooy ci téere bi gën a dajale ci buntu boobu nee na saa su ma déggee sama mbokkum jullit lu ñaaw mu wax ma ko baa mu def ma ko mu ne su boobaa lii mooy nekk sama position nee na su ma ko xoolee gis ni kat moo ma tut garaat ci yàlla bu dee xam-xam moo ma ko ëppalee bu dee diine moo ma ko ëppalee bu dee ragal yàlla moo ma ko ëppalee su boobaa dama koy ormaalee loola ñaanal ko yàlla romb jàll nee na su ma ko xoolee gis ni tamak maas la ma ne ko kon xaaral ma jéem a jël gi gën la man du ma fayaan toog yow maa yow ñoo tolloo woon waaye fi ne maa ngi lay bëgg a raw ndax comme wax nga ma lu ñaaw rek man du ma la ko wax kon xaaral ma gaaw raw la nee na su fekkente ni maa ko sut garaat dama naan kii jëruma yàq sama temps parce que damay mel ni moom kon te romb naa ko ba noppi du ma tourné waat allahu akbar mbokk yi wallahi gis nga lii buñ ko doon jëflante olof yi li ñuy wax naan ñaari loxo ñooy kàcc wax nañ dëgg de benn lam du yëngatu mukk benn lam ci loxo du yëngatu doomu aadama ji bu dikkoon andi histoire ak bu dul jeex yow nga teertoo ko salaaman salaaman day jeey ci am lu ñaaw jóge ci yow ñëw ci moom wàcc ko wàccuwaay bi mooy li ma leen doon jox misaal ci suñu daf téeli passé ñun da ngay xamal diw téeméeri tiyaaba nga xamal ko benn bu bon benn bu bon rek nga bëgg a yàq téeméeri tiyaaba déet du loolu dëgg la benn bu bon ba lu bon la danañ ko ca yedd danañ ko ca waar danañ ko ca jëkk danañ ko ca mere waaye bu mu tax ñu sol ko ci mbuus sànni ci bëteel parce que lim baax li ëpp lim bon le imaamu zahabi nee na bu dee nii nga bëgg a doxalee ñëpp ngay sànni doo ànd ak kenn ak a wax dëgg kon melokaan lii moom la doon jëflante moom Abdullah ibn Abbas waaye karamuhu wa zuhdu naka la dëggoo woon àddina ak ñi mu tabee woon xam ngeen mbokki Abdullah ibn Abbas même bu bëriwul alal sax yàlla war a tëgal na ko doomu bàyyi la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yemul te loola waaye ku mu ormaalal la bal Umar ibn al-Khattab xam ngeen ni bi mu faloo ci xilaafa gi doomi saxaaba yi sax daf leen a wutaloon salaire doomi saxaaba yi sa baay sa baay demoon na badar dañ koy wutal salaire gis nga fayum salaire ci l'islam mi ngi tàmbali ci Umar ibn al-Khattab sa baay demoon na badar dañ koy fay salaire ah yow sa baay demoon na badar waaye sa baay nekkati fi yaa fi nekk yow nañ lay fay salaire parce que sa baay ah allahu akbar lii de mooy retraite xanaa sa baay ma demoon badar faatu na waaye yow ñu ngi lay fay yow lu tax parce que sa baay dafa liggéey loo xamante ni tey bu yëf yi neexee bañ koy noosee tey ñoom ñoo tuuroon seen deret Abdullah ibn Abbas nee na man day ma jël benn kër kërub julit fekk kërub julit yoral leen seen dund àjjuma ba àjjuma bi dellu si wala ma jël benn këru julit yoral leen seen dund weeru lëmm nee na moo ma gënal man aji daaw aji waat ren allahu akbar alhajju almabruru ala taalamuuna anna laysa lahu jazaun illa aljanna yéen yàlla bi nee na ajju yàlla nangu fayam moom mooy dugg ajjana direct amul passeport amul visa dugg rek ngay def dem jàll mu ne ma yoral leen ak benn këru julit dépense bis ba bis ba dellu si baa weer moo ma gënal aj ah nee na ma fekk sama mbokkum njëriñ ma dimbale ko ngir yàlla moo ma gënal jël samay diinaar yi bari dugal ko fi sabilillah ba xaaj na ne Ibn Abbas nee na keroog bi ñu fëggee dërëm dërëm ak dinaar xam nga bu njëkkoon am na ay nguur dëkk xanaa yooyu moom ñun ko nay xamuñu ko xeeti xaalis yi doon am nee na keroog bi ñu fëggee xaalis iblis dafa jël xaalis yëkkati ko ba teg ko ci diggante bakkan beeg bët bi di ko xool di ko yow yaay ndaw lu sawar a yoon ni waay di ko yow moom soxla naa la yaag bëggoon naa nga ñëw fi aka wax dëgg xaalis bi ñu ko defaree mu iblis da ko yëkkati teg ko ci diggante bët yi bakkan yi di ko xool te daanaka yow yaay ndaw lu sawar a yónni yow pour la yónni nga dem te aw xët aka wax dëgg wallahi ñaari mbokki jullit yu def ñii jàppante ngir yàlla ba nga jàpp ni ñaari ñu génne biir àjjana ngay séen boo indiwul xaalis léegi rek mu dox seen diggante léegi rek mën na ko yàq gis nga yu mel noonu moo tax iblis fonk ko nee na iblis daan ni bi ka udxilu naasa naara wa bi ka atga wa bi ka ak ukaffir nee na yow dërëm day yow dërëm di arrangé nga ma ni ko lu tax mu ni dinaa fexe fexe fexe ba yéefarloo nit ci yow laay jaar dinaa fexe ba deewloo nit du xam boppam rëy rëylu te fekk ci yow laay jaar waaye dinaa fexe ba tàbbal nit safar ci yow laay jaar mu ni raditu min ibni aadama bi xubbi dunya an yaabudani gërëm ni ko waa man de gërëm naa doomu aadama yi buñ dee jaamu yàlla man nañ ma jaamu rek man ak wax dëgg am na ñuy jaamu dërëm yéen yàlla neen ta ay sa abdu dinaari ta ay sa abdu dirham am na koo xam ne dërëm lay jaamu am koo xam ne dinaar lay jaamu kii franc français lay jaamu kii CFA lay jaamu kii euro lay jaamu allahu akbar ak wax dëgg am na ñoo xam ne tey ah jaamu mooy koo xam ne lu mu la laaj rek nga jox ko amul isbaar amul takkusaan amul dara nga daal lu mu la laaj na nga ko jox business yi na dugg rek te baax Abdullah ibn Abbas nee na saa boo déggatee nit di wax soo déggee nit di wax bul xool ndax jàng na wala jàngut wala nangam déglul la muy wax rek ñu ne lu tax mu ne inna rajula la yatakallamu bil xikmati wa laysa bi xakim léegi di nga dégg benn waay wax wax ju ñor ju am kulla te waaja insan la xamul dara xam naa mooy misaal mi leen doon jox tànk rek te fan yi passé te mbokk mi doon ko wax naan ab dof dañu waa Dakar yéen léegi ngeen dee di tàngal di naan di seddal di naan ah wax na dëgg mu ne am dafa ko wax mu ne waa Dakar léegi dee ndax dañuy tàngal di nag tàngal ba mu tàng jër ndékki ndékki lu tàng jër pare jënd buusu galaas ni ko fil ci kaw da ngay dee léegi ñaar yi saa ko ci wér gi yaram te moo ne am dafa ko wax de di tàngal di naan di seddal di naan léegi ngeen dee gis nga moo tax ñëpp ndeke xekk ma dala génne ci kudul xakiim xekk ma dana génne ci kudul xakim loolu moom suñu làkk yi lay làkk muy wolof rek defe naa di nga ci dégg misaal yu bëree bëri léeg-léeg nit wax wax joo xam ni subhanallah da nga naan kii nii fu mu ko xalaatee ba di ko wax moo tax mu ne déglul rek ndax léeg-léeg mën ngaa gis benn waay bu xàcc xeer ni ko tël mu dal fa mu bëgg mu dal fa te fekk moo ne loxo bi jubut de daa daje rek daa tombee li wolof yi naan tombee waral aay gaab gis nga kon ndeke doomu aadama bu mu xeet kenn bul xeet kenn imam Shaafi ay daa toog di jàngale ba mu yàgg mu seen benn paa bi ñëw rek mu daal di banque tànk bi ñu ne ko kii kan la mu ne kii sama sëriñ la ñu ne ko yow kii foo jàngee ci mu kii daa xam dara mu ne moo ma sa wax ni xaj bu góor bu nee ba toll ci mat mu kallaf buy saw day yëkkati benn tànk bi mu ne loolu xaw ma ko woon te bi ma ko waxee léegi xam-xam la moo tax ma boole ko wàññaa la ko samay sëriñ pour bëgg tawaabo am mbokk yi est ce que ñun am nañ oyof gu doy noonu nit ki benn kalima bi ngay istifaado sa mbokkum jullit sa sëriñ la ci loolu jariñu ko ci moom waaye déedéet kenn ku ci nekk daal da ngay bëgg di gën a xuggali ko di jëm kaw bu ko defee yàlla dina gën a not rek day jëm suuf gis nga Abdullah ibn Abbas ku ormaaloon li yàlla ormaal la te wa xoqalaha dalik wa xoqalahu dalik li ko waral moom mooy ku déggoon alquran al karim la mbokk yi téere bii di alquran day yàlla da ci yëkkati ay nit ba ñu nekk ay sànq inna allaha la yarfau bi hada alkitabi aqwaman wa yadau bihi axiri axarin yonent bi nee na yàlla dina yëkkati ay nit yu war na doye di ba nekk ay sang fekk fekk alquran leen ko teg waaye mu suufeel ay nit yu war na nekk ay sang te fekk doye dal alquran moo leen ko teg Abdullah ibn Abbas xam ngeen ni mbokk yi Omar ibn al-Khattab bu mu sanaan problème day woo ancé Badr yi ñu leen kaay leen bàyyi desoon Badr ñoom Saad ibn Abi Waqqas mo Osman ibn Affan gaa yooyu ah ancé paa yi ñu leen kaay leen bu ñu ñëwee mu ne leen nangam di xew na lu ngeen ci xalaat léegi paa yi bu ñu dajee di waxtaan bu séenee Abdullah ibn Abbas di romb rek danaa ko eh kaay ñëw toog fii ndeke paa yi loolu neexu leen parce que li tax neexu leen mooy yéen Abdullah ibn Abbas gone la te ñu nit ay doom lañ am ci kër ga pourquoi ñuy woo gone gi muy ñëw di fekkee waxtaanu mag ñi waaye wala fi nee nañ gone bu loxoom fetee day mën a bokk ak mag ña ah gars yi dem ba mu yàgg benn bés ñu ñaxtu ko ni ko Omar ibn Khattab lii ngay def jaaduwul mu ñu lan laa def ñu ne ko mag yi jëmm di waxtaan te am ay doom bàyyi leen ci kër ga ngay seet gone gii di ko indi suñu waxtaanee loolu jaaduwut Omar ñi leen bis dana ñëw ma wan leen ndax jaadu na wala jaaduwut Omar bàyyi benn bis rek Abdullah ibn Abbas ñëw toog mu ni paa yi damaa bëgg ngeen tafsiral ma ida jaa nasrullahi wal fath kii xàcc jëm fee kii xàcc jëm fële kii xàcc jëm fële kii xàcc ku nekk wax ba àggal Omar daal di geesu na Abdullah ibn Abbas yow li bàyyi wax ànd nga tee mu ne ko déedéet mu ne ko lu ko àndoo ci mu ne ko saar wi daal li ko tënk-tënk mooy danañ sàgge si yonent bi mu jeex looloo ko tax a ñëw ida jaa nasrullahi wal fath bu dimbalam yàlla dikkee ak ubbeeku wa raayta annaas yadxuluna fi diinillah afwaajan nit ñi di dugg ci diine yàlla di ay mbooloo ah yonent bi xamal sa bopp yaa ngi bëgg a jeexal kat fa sabbix bi hamdi rabbika na nga sabbaal te sant sa borom ndax moo andi lii wastaghfirhu jéggalu ko ndax yaa ngi waaj a dem innahu kaana tawwaaba li mu ko tafsiree ba noppi nag xaayi kenn ku ci nekk dar gén ñi ndax façon ni mu ko tafsiree moo gàtte leer Omar ñu ne ñu ngi ni gone ku man lu paay yi mënut koy wax dëgg yàlla war ngaa mën a keroog la ko paay jàmmal mu commencé di toog ak mag ñi te it nag di déglu mag ak am solo nag léeg nga gis koo xam ne di nga ko jox ak yu ëpp lam am te fekk yàgg yàgg déglu ñu ko mag rek la nag ron sépar moo tax boo seetloo ku mag yar ak ku gën a yar duñ faral di bokk ku mag yar dina am ay crain yi àddina ku dal ak xam lu muy wax ak lu muy waxee ak kañ la war a wax ak kañ la war a noppi loo xam ne keneen ku dut moom doo fa am gis nga Abdullah ibn Abbas keroog bi Ali ibn Abi Talib doon lakk xawaari ji ci safara Abdullah ibn Abbas dañu ko boo ma tàgg woon doo ko def te mbokk yi xam nga Abdullah ibn Abbas yàlla dafa def yàgg na corriger ay mag donte na corriger bu rafet la koy defee nag xam nga Ali ibn Abi Talib xawaari ji dañoo demoon ba naan ko yaay yàlla xam nga loolu dafa ëpp mu mer mer mu jéggi dayoo taal aw tawar rek di leen dugal ci biir iblis saba saay saay bu bon bi daan ni ko laa ilaha illa allah man nag maa ngi doogu gëm ni ci gën a yaay yàlla nag ndax ba ma xamee kuy mbugalaatee ba tey amul kuy mbugale ci safara yàlla rek kay mbugal ci safara kon nag antal ilahu yaay yàlla bi Abdullah ibn Abbas ni ko waxoon naa la ko waxoon naa la bu lakk nit ñi ci safara boo ko defee da ngay gën a yokk daay gi rek rey leen rek mu jeex rey leen waaye bu leen lakk ci safara te xoolal jëf bi mu doon def ak a baax ndax ku def lu bon mun na reyee rek baax na waaye nag maanaam ubbilaat na buntu gaa yi ñu gën a tax ñu ni ko yaay yàlla mu ne ko lii laa xamal defe naa yéen a ngi fàttaliku dundu Aïsa radiallahu anha keroog ba mu demee ca xeex la ba ñibbi si ma ngi saxaaba yi ku mel ne Abdullah ibn Abbas ku mel ne Abdullah ibn Omar doon na ko wax lu mel noonu boo ñu tàggu woon doo dem boo ñu tàggu woon doo dem gis nga ndax xamoon nañ lépp fi lay mujj kon ñu mel noonu bokk na ci kat yi nga xam ne dañ yëkkati Abdullah ibn Abbas kon mbokk yi nekkati xam-xam dafay jox nit ci daraja ju kawe wallahi yàlla da lay kaweel xool leen xool leen xool leen shahida allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul wal malaikatu wa ulul ilm yàlla nee na seede naa ni maay yàlla jël naa malaaka yi ñu nekk sama seede kaw suuf ba kaw suuf daj mbokk yi yàlla ku xam la tànn wa ulul ilm qaaiman bil qist mbokk yi xam ngeen ni kuy wut seede tegg ci nit lépp am koo jël laa sakka ne ka nga jël am na lu ne ca moom moo tax kenn ku nekk mébét nii moo war a tax mu góorgóorlu fexe na mu def ba am xam-xam te it yàlla tax nag ku dëgëroon la aw lay nag moom Abdullah ibn Abbas ku dëgëroon la aw lay benn bis benn waaye dafa ñëw daal di koy teg di ko laaj awalam yaraw anna samawati wal ardi kanata rafqan fa fataxnahuma lu muy teg ndax booba nit ñaa ngi kenn ku ci nekk ma nga koy wax ay wax mu ni asamaan si daa nekkoon lu ñu dégg déggaaral dëgër taw daawul wàcc suuf si nekk lu tal lool gàncax dawul sax sunu borom daal di bëtt asamaan si muy wàcce ndox mu fëllal suuf si muy génne gàncax mu ne loolu mooy fa fataxnaahuma wa jaalna min almaai kulla cheyin xay ginnaaw boo xam ne aaya jooju dafa jaaxaloon seen jamono lu muy teg moo tax amas nee na abu wail nee na te xam ngeen abu wail si ndongo yi abdullah ibn abbas yi la bokkoon abu wail nee na am na aj joo xam ni abdullah ibn abbas doon na firi suuratu nuur mu ni billahi waa perse sax bu ñu fekkee woon tafsir boobu danañ tuub dugg ci l'islam ndax da cee wax ci ay kéemtaani yàlla loo xam ni loolu dafa dépassé xam doomu aadama loo xam ni maanaam même ku du jullit bu ko déggee sax mu convaincre ko te xam ngeen ni abdullah ibn abbas kéemtaan suñu borom la woon ci jàngale loolu la koy wane mooy xista bii di ñëw abi saalih nee na man de mas na maa fekkee abdullah ibn abbas ci benn jataay boo xam ni gëm naa ni waa quraysin jiira quraysin yëpp buñ amul woon benn valeur bu dul benn jëf ji mën nañ koo ndamoo ba àllaaxira te bu sàtt allahu akbar sel jiir quraysh bu ñu amul woon benn ndam bu dul bii lay bëgg a tudd mën nañ koo ndamoo ba àllaaxira te bu sàtt ñu ne ko lan la mu ne benn bis damaa génn gis buntu kër Abdullah ibn Abbas fees jell jell jell ak ay nit nit ñi toog mbooloo mi mu ne yoon bi sax dañ koo baare nee na ma duggee wax ko Abdullah ibn Abbas ni ko ñooñu la ñuy wut si mu ne xam-xam la ñuy wut si mu ne aal ma satala gi ma jàpp ñu aal ko satala gi mu jàpp bi mu paree mu daal di yónni Abu Waayil ni ko neel mbooloo mi képp kuy laaj lu jëm ci alquran rek na dugg si ku dul laajul alquran bul dugg si am mbooloo dugg ba fees nii alquran façon jàngi nii façon nu mu wàccee fan la wàcc lii madina seen xol seet na ñene waaw mu ni génne leen xajal ñeneen meneen mbooloo dugg si mu ni tafsir lu waaye am looy laaj baqara ba naas laajal gars yi di laaj di laaj ba mbooloo mi jeex ñu doyal ngeen ñu ne waaw mu ni génn leen ñooñu génn mu ni fiq laay ñoo leen kon masalam fiq lépp fonk l'islam yëpp nee na mbooloo daanaka dañ koy yendoo ba ngoon jot bi mbooloo mi demee mu ni miraas ñi am problème mu miraas lan dugg si bañ demee ba yëpp jeex mu ni même làkku arab lugal arabiya chiaru poésie way même bu dee soo chiaru jahiliya sax ceddo ga ku am looy laaj ñëwal allahu akbar mbokk yi lii moom li abu waayil wax dëgg la mu ni lii mosee su koo gis ci kenn wax na dëgg lii mosee su koo gis ci kenn te it boo fàttalikoo dundu abdullah ibn abbas dinañ xëy benn bi dinañu tey journée aqida la ba ngoon jot nag loo soxla ci aqida mu jàngal la ko leneen mu xëy benn journée tey fiq la loolu la doon def moom léeg-léeg daana ko def ci ak dundam moo tax mu ni lii day bu fekkonte ni ñoom dañ koy ndamoo arab yi ba àddina tukki nee na musumaa gis ma fama raaytu mithla hada li ahadin min annaas musumaa gis lii mu am ci kenn ci ci nit ñi beneen bi ci topp mooy kiimtaan goo xam ne gis nga xam-xam ni mel wallahi mbokk yi xam-xam non subhanallah cafka bi ci nekk doomu aadama su ko xamoon lu mu mën dana ko def pour jàngi ko xam ngeen ne yéen a ngi fàttaliku maanaam imaamul xatib al bagdaadi ca jamono ja nga xam ni yahud yi fexe woon nañ ba créé benn leetar leetar boo xam ne dañ caa def ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na yéen yéen yahud yi yéen moom suuf si sa ci madina waaw mi ngi nii wax ci ay wax benn bi ñu xoolee archive yi dañoo gis ni leetar bi ak leetar yonente yi yonente bi dañoo nuroo mbind ma ak mbind lu yonent ba yonente bi doon bindul dañoo nuroo dat ba ci bañ ca ba yëpp nuroo ñu indil ko amirul muminin ci jamono jooju ci dawlul abbasiya amirul muminin liir ko jox ko gaa yi ñëpp ni ah lii de ak jaaxle la te yonent bi la mu digal mooy lañ génne yahud yi ci madina lan moo ciy fexe te lii leetaram yonent bi la benn waay bu muus ni nañ dem dellu ci borom xam-xam fekk jamono jooju imaam xatibul bagdaad yi ma nga fa woon xam ngeen bagdaad moo nekkoon capitalu islam ci jamono dawla abbasiya xatibul bagdaad yi xam ngeen ko imaam ju mag la taalif na benn téere boo xam ci téere yi gën a riche ci àddina bi ci taarix la bokk muy taarixu Bagdad boo demee nettali na fa dund Ahmad ibn Hanbal nettali boo xam ne kéemtaanu suñu borom la ah bi loolu amee ñu indil ko xatibul Bagdad yi mu téye leetar bi liir ko bi mu ko liiree ba yekkal ni ah lii da jarul yàq waxtu lii moom ay kàcc la du dëgg te fekk dëkk bi yëpp ñu ngi ci jaaxle ñu ne ko yow noo def ba xam ne di kàcc la mu ne woo leen nga ko wax woo mbooloo mi dëkk bi ñu daje ci penc ma biñ dajee ci penc ba dafa yëkkati leetar bi mu ñu jàng ko ba noppi mu ni waaw ñoom dat biñ ci def dat biñ ci def avant fatxu Makka la après fatxu Makka la ko def avant fatxu Makka la tuuti dat biñ ci def avant fatxu Makka la tuuti te nee nañ Saad ibn Muaz bokk na ca ña fa fekkee te Saad ibn Muaz dee na avant dat bii ku dee mënta dekk di seede ñu cek gaa yi xam ni boobu moom yàqu na ñu ne ak ban mu ni nee nañ Muawiya tamit bokk na ci ñu ko seede mu ne leen Muawiya ginnaaw fas Makka la tuub ak yéefar yi naka la fi jullit ñi nekk yonente bi dem di seede yéefar yi naan leen kaay leen seedeel ma wa kafa allahu muminina alqital wa kana allahu qawiyan azizan mbir ma jeex mbokk yaakaar naa masala yu mel nii bu gaaroon tey te fekk fa xam-xam musiba am lu mel noonu moo daal Abdullah ibn Abbas gis nga ci jamonoy Ali ibn Abi Talib te bokk xool na Ali ak ni mu dëgëreeg ni mu gëmee yàlla xawaari ji génn nekk vingt quatre mille personnes vingt quatre mille personnes mbokk yi vingt quatre mille personnes ak ni ñu bare ni mën a jaamoo yàlla koo ci gis jëbaa ngi mel ni oomu giléem ndax mën a julli xawaari ji ñu ne Ali ibn Abi Talib yéefar la moo tax ànd ñoog moom dem ca àll ba Ali jaaxle xam ngeen Ali dem na ba ñaan yàlla sax yàlla man fi ne yii lakkal nañ man faat ma ma jóge ci benn yoon ndax affaire bi ni mu nekkee ci moom Abdullah ibn Abbas ni ko ah man de boo ma joxee ndigal dinaa dem ci ñoom te bu ma demee ci ñoom bu may ñëw na indaale sërika mu ne ko jox naa la ndigal mu ne ko wan wax koo jot mu ne ko tisbaar ay bëgg a jot mu ne ko kon da ngay yeexe tisbaar bi yeexe ko ba mu naaj mooy ibrad in teel isa isa isa stadda al xarru fa abridu in teel nee na bu tàngoor wi demee ba lépp di lakkit man ngeen a seral tisbaar bi mu yéeg tuuti nee na ma daal di dugg sangu ba set kaalawu ngàbb sama man sama yat génn Abdoulaye ibn Abbas nee na bi ma dikkee maa ngi fekk gaa yi subhanallah koo ci xool da nga koy ñee ndax mën a jaamu yàlla seen bët yaa ngi xonk ndax ay jooy allahu akbar moo tax moo fol fol bi daa ak réer ni muy def nii seen jë yaa ngi mel ni oomi jëlee ndax mën a naafile mu ni ku dugg ci seen biir xoola Abdoulaye ibn Abbas mooy wax mu ni ku dugg ci seen biir da ngay xeet say jaamu yàlla ak foo mën a doon ndax ñoom liñ mel waaye seytaane fëkk na leen nee na bi ma yegsee ma ni leen waaw yéen kii goro yonente bi la ndax may na ko doom mooy Ali ibn Abi Talib ñaareel bi mooy ndaw yi moo ci njëkk dugg ci lislaam ñetteel bi mooy xalifa moom lan moo leen nekk ci moom ñu ni ko yéefar la yéefar la moo tax toppuñu ko ñu ne ko lan la nekkee yéefar lan moo leen nekk ci moom ñu ne ñett moo ñu nekk ci moom mooy moom daa war a àtte jël ci téere yàlla bi def ko mu jël ay nit naan leen dem leen ngeen àtte nit ñi waruñoo àtte te yàlla ak yonente bi nekk loolu mooy lan mooy yow yabalee Abu Musa al Asari mu dajeeg Muawiya ngir ñu def benn dialogue fa fa coow la coow la juddoo defe naa loolu leeraloon naa ci lu Ali ibn Abi Talib mu ni kon yàlla moo ne inal xukmu illa lillah yàlla rek moo war a àtte ndeysaan moo tax boo jàppee alquran rek defe ni yaa ci nekk sa way di nga am aaya boo xam da lay supp jalak yow nga daal di fële in al xukmu illa lillah mu ni boobu ak man ñu ne ko dafa xeex ak Aysa ba jàpp ko ba gañe ko pourquoi jàpp ko jaam yóbbu ko këram mu dem bàyyi ko su fekkente ni jàppul ni ku ñu war a jàpp jaam la jërul woon muy xeex ak moom kon lu tax jàpp ko mu yóbbu ko ndax xeex naa moom ba gañe ko lu tax mu koy bàyyi muy dem di ñibbi mu ne ak lan looloo ne ak yan ak lan mu ni bokk na ci leen ñetti mooy bi ñu defee accord yi dañoo bind Ali ibn Abi Talib ah mu ni léegi pour maslaa dina tax mu ni effacé leen amirul muminin mu ni pourquoi mu koy nangoo effacé na ko doon bu nekkul amirul muminin mooy amirul kafirin wax ji tàng jër na Abdullah ibn Abbas ni léegi nag da damay sartanteeg yéen lii ma leen di tont ci téere yàlla bi laa koy génne te su ma leen tontoo da ngeen dellu ginnaaw nag gars yi sax nangu sart bi ndax yàlla def ne ormaalal nañ ko nag mu daal taxaw def ab xutbaam ba noppi mu ne waaw su fekkee mbirum àtte ni inal xukmu illa lillah xanaa jàngu leen ba problème amee ci sëy suñu borom ni fabaatu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqi llahu baynahuma problème am na ci sëy bi suñu borom ni woo leen ci famille ku góor ci kenn àttekat woo ci famille ku jigéen ci kenn in yurida islahan bu leen defar taxee jub yuwaffiqi llahu baynahuma kii xakam la ko yàlla tuddee kii xakam la ko yàlla tuddee léegi loolu lu ngeen ko bëgg a def ak aaya ji amul sens amul tontu ndax li tax amul tontu mooy lan doon bañ mooy inal xukmu illa lillah yàlla du wàcc asamaan si àtte doom ni muy def faw ci ay loxo lay jaar. gars yi ni tekk mu ni déedéet soxlawu ma tekk ne da ngeen di nangu ni am naa ndam foofu ba pare ma doog a jàll. gars yi ni ko waa bii moom nangu nañ mu jàll mu ne nee ngeen dafa xeex ak Aysa ba pare jàpp ko mu ne léegi damay laaj ndax yéen reconnaître ngeen ni Aysa ummul mu'minin la wala déet ndax yaay jullit annabiyyu awla bil mu'minin wa azwaaju ummahatuhum yàlla moo ci alquran nee na yonent bi moo gën a yey ci képp ku gëm yàlla ci ay soxnaam sunuy yaay lañ nangu ngeen ni seen yaay la wala déet bu ngeen ko nanguwul ay yéefar ngeen te bu ngeen ko nangoo ndax dëgg ngeen jàpp sa yaay jaab di ko xorñañal gars yi ni tekk mu ni déet da ngeen tontu ñaar yi da ngeen di wax ban moo ci ñaar yëpp ko bon jël leen ci benn gars yi ni ñun koy liñ ci mën a jël benn mu ne kon nangu ngeen ñu ni waaw mu ne ñetteel bi yéen nee ngeen moo effacé turam ci amirul imaara gi ñu ni waaw mu ne waaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog ba ñu def sulxul xudaybiya mu bind muhammadun rasulullah arwata bi masul ni ko déedéet nanguwuñ ñu yaay yonent yàlla buñ ko nangu woon duñ def ay accord yonent bi ni effacé leen moo tax gis nga ali nag daa tari tey ali daa tari ndax action boobu muy am ali moo ko fekkee woon yonent bi ne ali effacé sama tur ali ni ko mukk rasulullah du ma ko effacé xanaa nga wuti keneen ku ko effacé yonent bi woo benn waaye ni ko ana ana muhammad rasulullah ama mu mun woon lii sallallahu alayhi wa sallam te loolu ci kéemtaan mi la bokk na léegi la ana Muhammad fan lañ ko bind ñu ne ko mi ngi nii mu effacé ko boppam loolu te Ali la amee woon Ali bi bi mu gisee ne problème am na toll na ci war ko gu toll ni ga yent bi tolloon mu ne naa effacé turam mu ni waaw comme bu nekkul amir mu amirum kaafiri léegi yonente bi bu nekkul woon rasulullah kon lan la foofa gars yi ne fekk mu ni déedéet soxla ma tekk da ngeen naan nangu nañ ñu ne nangu nañ mu ni leen mbir maa ngi noonu allahu akbar allahu akbar bi muy dem dañu ko su may ñëw naa laa la vérité vingt quatre mille personnes lañu vingt mille personnes yëpp keroog dañoo julli ci tisbaar vingt mille personnes yëpp dañoo julli ci tisbaar mu def ah quatre quatre mille personnes subhanallahi alazim ñooñu génn moo xam dañoo bari woon génn dëkk bi sax lañ def ñun ñëpp ak seen i doom ak seen i njaboot dem campé ca àll ba ah ñaar fukki junniy nit yoo xam ne dañoo nekkoon ci yoonu xaawiya yi dem nga tourné ak ñoom indi leen ñu dirigé tisbaar kooku bu ñëwoon ba àllaafi rek ñu bàyyi ay yëfam yëpp fay ko bii kese maa ngi yaakaar mu am ñu mën a yóbbaale sax moo tax xam-xam lii la xam-xam di jëriñ moo tax iblis ki gën a bañ mooy borom xam-xam borom xam-xam la gën a bañ des koo bañ a bañ a bañ a bañ ba bañ gi daanaka moom xamu fu mu toll al allaama ibn al qayim rahimahullah ci téeréem boobu di miftaaxu daari saada ubbi na ca bunt bu yaatu boo xam ni lu ma téeméer ak ñaar fukk ci ay bunt mu ngi koy wax ci wàllu xam-xam waaye bu lay leeral iblis ni mu bañee borom xam-xam ci ngay xamee ndekkate ni borom xam-xam la yëg ni amut noon bu gën a yées iblis amul noonu moo tax saabu borom xam-xam faatoo day kontaan parce que ci doon leeral yoon yi moo dee daa bëgg nit ñëpp nekk ay innocent rek su ko defee duñu xam yoon wa ñuy jaar pour daal di tànn fa nga xamante ni mooy kërëb xéewal ga kon lii dafay soññaat ndaw yi tey ndax kii ñuy waxal du ab paabu bee jaaw de déedéet ndaw la woon à l'âge de douze ans treize quatorze la commencé mel ni mu mel ah nga xamante ni benn waay dañ ko wax ni ko waaw yow lan moo tax demoo jàngi ca magi saxaaba yi ngay jàngi ci goney saxaaba yi Abdullah ibn Abbas mu ni parce que damaa seetlu masala day ñëw juróom-ñaar fukki saxaaba juutoo juuyoog Abdullah ibn Abbas te léeg-léeg ñoom ñëpp dañu ñëw fekk ci waat kon loolu tawfiq la joo xam ne suñu borom mu ngi ko defal waaye képp la kon dafay dolliwaat courage bi yëg parce que nangam kenn mënu ko wala kenn du mel nii loolu nit ñi dañ ko war a bàyyee wax li ñu war a gëm mooy mbir ñi yàlla mooy maye subhanahu wa taala kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla defal ñu tawfiq yàlla yàlla boole suñu xam-xam te it mu nekk loo xam day nekk xujjatan lana la xujjatan alayna wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain